asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV dal leen si jàmm si kër gi mbokk yi ko defee ñu ànd ak yéen ci xibaaru marax yi ngeen ànd ak seen doomi ndey Omar Tunkara ci bopp xibaar yi mbokk yi dinañ ko doore ak xibaar bi nga xam ne ñu ngi ko jotali ñu ngi ko jot léegi-léegi njiit réew mi His Excellency yi président Adama Barrow yëngal na li nga xam ne nag moom mooy cabinet am bi ndax am na ay coppite yi nga xam ne jot na ko fay def ci xibaar yi benn tey ci réew mi nag dinañ dem seeti ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yëngu ci wàllu xeexam malaria bi Gambie nag seen jëriñ bi ñu dénk wàllu pàcc bi na jàngat bi nga xam ne nag ñu ngi koy def pour jéem a seet jéego yi nga xam ko dox euh, pour euh, jéem a xeex li nga xam ne nag moom mooy jàngoro malaria bi Gambia Supreme Islamic Council nag euh, nee nañu am na nag kàddu yi nga xam ne jot nañ koy garal jëm ci wàllu jongal jigéen bi nga xam ne jur na coow ci réew mi ñu ngi ñaax nguur gi nag pour ñu jéem a seetaat seen taxawaay ci wàllu luwaa boobu nga xam ne nag ñu ngi ko teral ci réew mi fële ca di euh, bitim réew Sénégal nag euh, jamono ji seen i ndaw yi nag génn na ci mbedd yi daal di ndokkaleku wala boog wane seen i mbégte ak kontaante gannaaw bi nga xam ne nag génne nañu eh, ki nga xam ne kooku mooy opposition leader bi nag di Ousmane Sonko ak eh, seen i candidate eh, bi nga xam ne nag nee nañ Angleterre am nañ ko pour di ne nag ko pour jàpp ñooy nag yóbbu leen foofu la ca Rwanda nag delloo leen foofa doon na loo xam ne nag jàpp nañ ne am na taawaay bi nga xam ne gis nañ ne am def na ko ba pare maanaam def na coppite ci li nga xam nag moom mooy seen réew ba pare mbokk yi ak yeneen léegi léegi ñu ànd mu ngoog mbokk yi daleen si jàmm bu ko defee rek ñu tàmbalee xibaar yi ci euh, réew mi rek ñu doore ko ak li nga xam ne nag moom mooy bataaxal bi nga xam ne jot nañ ko. Euh, bayee ko ci office of the president his excellency président Adama Barrow moom nag am na coppite nga xam ne def na ko euh, ci cabinet am bi nag euh, bés ni ki tey fukki fan yi ak juróomi ci wéru maaj atum 2024 ndax am na ñeenti nit yi nga xam ne jot naa dugalaat gars yi ci li nga xam ne nag moom mooy cabinet bi ñu doon ay ministres yu bees yi nga xam ne dañ koy fekk ci liggéey booba ci loolu nag gis nañ ne docteur Ismaïla Cissé moom nag fal nañ ko def ko ministre euh, euh, of information Hadi euh, Jatu Si kooku nag fal nañ ko def ko ministre of basic and secondary education mooy wàllu njàng ak njàngale bi naka ci réew mi ba tax na euh, honorable Amad NK Bah mi nga xam ne moo nekkoon ministre bi ñu dénkoon wàllum gan yi gane si réew Gambie ak aada ak cosaan euh, kooku tamit ko ci beneen jawrin moom mooy jawrin mi nga xam ne léegi moom lañ dénk wàllu euh, suuf si nguuri ndaw yi ak i tamit wàllu diine gi naka ci réew mi honorable ministre Abdoulaye Diop kooku nag yóbbu nañ bi nga xam ne foofu lañ jëlee moom kii di honorable Amad NK Bah mooy ministre of tourism and culture mi nga xam ne moom moo nekkoon kilifa ba jiite woon na Gambia immigration department léegi yóbbu nañ ko nag pour mu daal di jiite li nga xam ne nag moom mooy inspecteur euh, inspecteur mu nekk inspecteur général police maanaam doon kilifa boo xam ne moom mooy jiite police yi nag euh, ci euh, réew mi ba tax na Baye Ibrahima Mboup moom moo lekk léegi directeur général bu Gambia Immigration Department honorable Ousmane Sow mi nga xam ne nag war na ne yàggut bu mu delsee ci réew mi gannaaw nag feebar ba ko daboon nag ay weer ci ginnaaw kooku nag delloowaat nañ ko fa mu nekkoon nag mooy directeur général bu State Intelligence Services ba tax nag war na ne am na yeneen tamit ñaari bànqaas yi bokk ci nguur yoo xam ne tamit am na coppite nga xam ne def nañ ko foofu parce que gis nañ ne Mr Gallo Seydi fal nañ ko def ko managing director bu NAWEC waaye tamit euh, Mr docteur Ndiogu Ba wane ne kooku tamit andiwaat nañ ko ci nguur gi delloo na ko ci nguur gi gannaaw bu ko nguur euh, ko tegoon ci kawam léegi docteur Ndiogu Ba nag fal nañ ko def ko directeur général bu PURA ba tax na nag Momodou Sabally bi nga xam ne ay mbiram juróon na coow ci réew mi gannaaw bu mu UDP léegi nag président Barrow moom la def special adviser ci li nga xam ne nag moom mooy nguur gi bataaxal bi nag foofu la nag moom mooy suñu kilifa ci li nga xam ne nag moom mooy kër gi di Kawsu Badji su Badji di Kawsu Badji nag euh, Kawsu ñu lay dalal ci li nga xam ne nag moom mooy suñu xibaar yi tey xibaaru timis yi euh, jërëjëf Omar euh, jaajëfal askan bi nga xamante ne ñoom ñoo safoo Star TV ci rawatina li nga xamante ne moom mooy xibaari marax yi nii Euh, jërëjëf euh, Kawsu euh, président Barrow def na li nga xam ne nag moom mooy ceeñi si cabinet bi mu mel ni am na ñeenti nit ñi nga xam ne nag jot naa andiwaat gars yi dugal leen ci li nga xam ne nag moom mooy cabinet booba mu nekk nag xam ne daanaka tey jii kenn séntuwut ko woon parce que fan yi dégguñ fenn foo xam ne dañ ko laam-laame mu xibaar boo xam ne dafa mel ni denc nañ ko bu baax a baax jéem nañ daal pour denc li nga xam ne nag moom mooy xibaar yi bu baax a baax waaye nag bi a yi si gën a fës moom mooy euh, Data a Cissé mi nga xam ne tey ji jël nañ ko dugal ko ci li nga xam ne nag moom mooy cabinet bi mu nekk ndaw boo xam ne mu doon jàngale ci li nga xam ne nag moom mooy université bi coalition bi tey ñu boole ko ci cabinet bi def ko ministre bi nga xam ne moom mooy féete wàllu information ci réew mi naka nga jàngate coppite yi nga xam ne président bi def na ko tey ci cabinet waaw euh, force rek ñu xool li nga xamante ne moom mooy coppite bi parce que nekk na mbir mi nga xamante ne euh, development is a process comme ni ñu ko waxee ci kaalamay àngale euh, su fekkee nit mu ngi liggéey ci wàllu njëm kanam foog mu am yi nga xamante ne moom mooy yuñ cee saytu xam nga nit suñ la dafa am li nga xamante ne moom mooy development plans development plan am li nga xamante ne moom mooy li ko war a aar mooy lu ñu ooyee road map parce que loolu mooy xàll yoon bi wane li nga xamante ne moom mooy yoon bi ñoo jaar so nguur gi tamit suñ bàyyee xel Ah, gannaaw bi nga xamante ne tànn nañ président bi 2021 toog na li nga xamante ne moom mooy almost one year defut li nga xamante ne moom mooy in fact more than one year defut li nga xamante ne moom mooy cabinet reshufflement because from li nga xamante moom mooy 2001 ah 2021 ba nga xamante ne moom mooy 2022 after national assembly elections si la doog a asi li nga xam ne moom mooy reshufflement waaye si biir ah, cabinet boobu noonu bëri na yi nga xamante ne moom mooy li ñu waxoon mooy dafa nekk ay cabinet bi nga xamante ne du nekk business as usual ci ñoom so therefore euh, nguur gi dañ am seen milestones am seen yaakaar yu xaati xaatimoon teg ko du ñàkk su fekkee ne gis nañ ne am na yi nga xamante ne moom mooy yuñ séntu woon te nee ko di dox war naa mun a asi wecceeku but even su fekkee ne mu ngee dox nga gis ne amaana speed bi nga xamante ne moom la ñuy di doxalee te am na ñeneen ñi nga xamante ne am nañ xam-xam doomi réew mi lañ ah te am nga yaakaar ne mun nga leen a dénk ci place yi mun ngaa def ci yooyu noonu lim cee jàngee mooy ñaari mbir. di nga am li nga xamante ne moom mooy new méthodologies because ku ñu wécci rek ñu denkaat la place di nga bëgg assi li nga xamante ne moom mooy ay coppite di nga bëgg a wane sa xerañte bi nga xamante ne ah, service booy provide maanaam li nga xamante ne moo tax ñu fal la askan bi dinañ ko gis te amaana ah, loolu la président bi séntu eh, ci li nga xamante ne moom moo waral reshufflement bii nii ah, that doesn't necessarily mean ne areas yu mu laalut foofu noonu amul problème déet waaye li ñu see séntu mooy réew eh, jamono bu moo dox dafa am lu ñoo ooyee priorities dafa am li nga xamante ne moom mooy tamit lu ñoo ooyee li nga xamante ne moom mooy di ah, degree of magnitude mooy tolluwaay li nga xamante ne moom mooy soxla bi. Mm. pour saafara yooyu noonu. Mm. Ah, te suñ xoolee li nga xamante ne moom mooy wàllu information ah, parce que dañ xaaj ñaari bi suñ ko fàttale ko jamono boobu noonu information benn la waaye léegi yaa ngi am li nga xamante ne moom mooy digital economy mu taxawee li nga xamante ne moom mooy boori boppam so loolu noonu su amee dafa am yu bëri yi nga xamante ne benn duñ mun a nekk nuñ daan liggéey la ñoo liggéey soo fu mu jaar mu am doxalin yu ees yi nga xamante ne war nañ ko cee def te euh, ki nga xamante ne moom mooy ki ñu fa dencal docteur Ismaila Cissé ndaw la gëstukat la jàngalekat la waaye tamit dafa bokk ci ñi nga xamante ne ci réew mi euh, fu ñu waxee ne docteur Ismaila Cissé ñu nangul ko xam-xamam kon su fekkee ne dénka nañ ko place boobu comme li ma dee wax saa yu ñu dénkee ndaw yaakaar gi dafay gën a bari euh, lu nit ñi di si dafaa gën a bari te nguur dafa mel ni nit ko xiif nga toog nga naa ko raxasal sa loxo su raxasee loxo dafaa yaakaar ne ndab bi dafa war a tege su docteur ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom lañ dénka ah, dinañ toll ci place yi nga xamante ne nit ñi li ñoo séntu ah, yaakaar naa ne mooy weesu sa seen njorta li nga xamante ne ñoom lu ñu mun a deliver but that is the stethoscope tolluwaay boobu la réew mi tollu Omar. Ah, docteur <clears throat> nekk koo xam ne ñu bari dañ jàpp ne eh, kaana lu mu dee image bu mu dee wane mooy ne he is action oriented. maanaam lu mu daanaka ci li muy dox yëpp dafa dañ yaakaar ne dina ko dina ko jëfee ndax sentu nga ne docteur dina jëf-jëf boo xam ne dina am coppite yi nga xam ne dinañ ko gis dina fos ba nit ñi gis li nga xam ne nag moom mooy coppite yi parce que ka fa nekkoon euh, jàpp ne ne yelloo na place bi waaye gisuñ yëngoom yi bari ci li nga xam ne moom mooy place mooy Lamin Kuyuñ Jammeh waaw xëj na sa euh, yëngoom euh, dina ne bari na waaye euh, li nga xamante ne moom mooy tooluwaay bi comme ni ma ko waxee dafa ñëw at a time bi nga xamante ne dafa ñëw am coppite bu xew mooy restructure ministry bi si boppam. am ñi nga xamante ne génne nañ ko stability mënutoon a am si jamono boobu su ma ne stability mooy am na yenn département yi nga xamante ne ñu ngi woon si ministry bi léegi dañ war a jóge ko fii dem fele am na yenn département yi nga xamante ne ñu ngi woon direct ñu bokkoon ci moom lu mu yaakaaroon ne war naa mun a liggéey ak ñu ñooñu wécceeku wécceeku boobu am na. di advantage bu docteur di am foofu mooy docteur is a researcher gestukat la te dafa góom li nga xamante ne moom mooy statistics based development mooy ne du xëy ne lii laa yaakaar dafay def gestu am li nga xamante ne moom mooy xam bu wér mu teg ko ne lii nii war naa mun a nekka te point bi nga xamante ne even li nga xamante ne moom mooy di establishment of projects yi nga xamante ne yooyu la lii yëpp is a research based dafa gestu ah, am team bi nga xamante ne ñoom la ñu liggéeyal ñu gestu fi lu tege Euh, soo xoolee si ministry si I don't want to go into details of benn ministry waaye léegi-léegi nguur am yaakaar ne mun nañoo def lii si fukki euh, wala euh, juróom-benni weer wala fukki at fukki weer ñu ñëw def ko li nga xam ne moom mooy lu weesu benn at lu ko dee waral mooy gestu bi du dee ñor so di type of person Dr. Ismaila Ceesay is I know him to be a researcher gestukat la te ku gëm statistics la du toog ne yaakaar naa. lu mu la wax daf laa ne xayma bi nii la te daf laa tegal euh, sarte yu wér tegal la li nga xamante ne moom mooy statistics yu wér so yafet naa njorta ne amaan na speed bu développement bi di xewee dina fasta dina gën a gaaw euh, with docteur Ismaila niki ki nga xamante ne moom mooy euh, ku fa jógee di ki nga xamante ne moom mooy honorable Queen Jammeh li ko waral mooy amaan na seen génération yi bokkut ba also def docteur dafa ñëw time bi nga xamante ne Euh, Queen jël na all di necessary sock bu mu waroon a jël si reshufflement bi parce que ministre yi benn la woon ñu xaaj ko def ko ñaar Queen jàmbe jël na dat stock ba pare so docteur war naa ñëw fekka métti métti bi yëpp Queen level na ko moom dafaa ñëw am a free ride. Euh, ministre beneen ministre bi nga xam ne def nañ foofu changes mooy ministry of interior. gàmmeen si bari jàpp ne according to li ñuy gis si internet bi mooy ne that ministry so dormant euh, parce yu bari daf day xew si réew mi especially when it comes to crimes euh, te duñ day gis ministry bi sax oote dialogue boo xam ne dañ si dee fada di jokkoo ak askan wi ki fa nekkoon kooku mooy Abdoulaye Sanja mi nga xam ne moom moo nekkoon IG bi euh, jiitewul li nga xam ne nag moom mooy police ndax foog nga ne foofu tamit coppite nga xam ne def nañ ko foofu dina yiil li nga xam ne moom mooy fruit am njëriñ bu muy jural gàmmeen waaw euh, pour man yaakaar naa ne coppite yi ñu def yëpp war naa am njeexital bi nga xamante ne dafa war a njëriñ doomi réew mi parce que euh, nguur ak sëy ñoo am yaakaar rek la seen nit ñi di dundee ba suñ takkee sëy bi mu doog a am euh, nguur tamit yaakaar la seen nit ñi di dundee ci coppite bi ba li nga xamante ne ñoom ñooy ñuñ fal suñ commencé di tari ñu xool li ñoo tari ni mu mel. ki nga xamante ne moom mooy former IG léegi mun nañ koo ooyee <laughs> officiel yi mu nekk léegi ki nga xamante ne moom mooy honorable dénka nañ ko place bi nga xamante ne am na track record si foofu noonu bat euh, ministre bi léegi génnaa rëy parce que aji ji yi rek la amee mm-hmm. waaye soo nekkee li nga xamante ne moom mooy ministre bi li nga xamante ne moom mooy all the other security apparatus sudut army bi directly ñu ngi under interior te loolu dafa gën a yaatu because immigration si la bokka ak li nga xamante ne moom mooy fire and rescue service ak ñu ñëpp dee all under li nga xamante ne moom mooy di interior ministry te war nañ cee mun a bàyyiwaat xel leneen su fekkoon ne jaar-jaaram rafetutoon ci li nga xamante ne moom mooy intérieur amaana li nga ah, ah, fi nga xamante ne moom mooy police amaana li nga xamante ne moom mooy place bi duñ ko ko dénka su yooyu noonu dafa nekk mbir yi nga xamante ne ñu war a mun a bàyyi xel la but also ah, as when it comes to crimes ñun lu ñu xam mooy police yi ñoom ñoo directly responsible pour li nga xamante ne moom mooy ah, peace ak security ci li nga xamante ne moom mooy domestic level mooy ci biir euh, réew mi so ba teg ci li nga xamante ne moom mooy protection of life and properties euh, mooy pour kaaraange euh, bagage nit yi ak seeni moomeef loolu dafa nekk ci ndodd li nga xamante ne moom mooy police so su fekkee ne tey def nañ fa li nga xamante ne wala si li nga xamante ne moom mooy police su fekkee def nañ ministre bi et former police officer kañ la ñoo commencé di gis njeexital bi mooy next budget naka la moo duggee because police yi di a under equipped loolu fu ñu jaar ñu nangu ko ndax from the ministry la ndax from di police la wala from li nga xamante ne moom mooy di national assembly next proportional euh, budget buy jógee ko ci nguur ñëw ci li nga xam ne moom mooy national assembly si wàllu intérieur dinañ ko wane ndax dafaa ñëw nekkaat business as usual trek la workshop euh, naka lañ ko dee ooyee beneen bi mooy euh, retreat wala dafaa nekk équipe di police to be more proactive because Omar man ak yow ak ñuy eewoo ci réew mi xam nañ ne at certain time soo soxlee police yi even suñ bëggee ñëw they cannot come because they are not mobile di wi xam nañ ne ah, police yi war nañoo adopté new technologies benn time ma ngi doon def analysis si rédio bi an ma ne police pour nga wàññi li nga xamante ne moom mooy loxo ci poos foog nga am lu ñoo ooyee body cam mooy dangaa jox police bi mu am équipement si nga xam ne dafaa nekk si moom amul benn contrôle over that record ki nga xamante ne leer na ne ñu ngi laa record from the office doo ñemee wax nit jox ma waaye kooku su la bëggee jox du ko ñeme because dafa xam ne ni ni ñoo gisee police bi noonu la ñoo gisee kooku li moo def loolu seerut am na gëstu bi ma defoon bu ma xoolee budget bi nga xamante ne moom mooy budget bi génnoon 2023 si at réew mi ma ne suñ jëloon four years ah, li nga xamante ne moom mooy retreat budget ñu dugal ko ci body cams li nga xamante ne moom mooy police station su fi amoon as of 2023 waxuma police post police station su fi amoon every police station waroon naa mun a am li nga xamante ne moom mooy three body cams xaalis benn xaalis xamante ne moom ñoom lañ wax ne boobu lañ dépense yóbbu ko si néegi député bi pour li nga ne moom mooy wàllu retraite so so so kon loolu mun nañoo séntu ne leste ministre Abdoulaye dina war a dox si loolu pour police yi seen liggéey mun a méngoo ak jamono war na koo mun a si police bi xam na jafe-jafe bu police yi na li nga xamante ne moom mooy advantage bi nga xamante ne moom mooy loolu la moo am du kaaraange police bi rek la de ba dafa wàññi corruption te ñun suñ réew mi suñu wàññee li nga xamante ne moom mooy loxo si poos corruption euh, dafa dafaa dem xam naa ne président bi interview nañ ko si Star FM Star TV mu ne corruption du lu ñoo jiiñ rek foog ñu am proof am na yi nga xamante ne mënuloo am proof mu yomba lu dul ñu jàppale ñu si yooyu parce que tey su ma ñëwee ne jox naa Omar aw ma caméra aw ma voice aw ma dara dañoo ne ah dafa koo tuumal waaye su fekkee commencé nañ ni gis police yi ñu équipe leen with modern technologies ñu am xarala yi nga xamante ne moom moo xew ci jamono ba fu ñu ooyee police anytime war naa mun a jóg fu police amee eh, eh, suspected case war nañoo mun a dem defi investigation ñu turn di police from a reactive police to li nga xamante ne mooy a crime prevention police system. Eh, loolu dina am solo bu baax a baax ci weeru jigéen lañ nekk nag am na benn jigéen joo xam ne dugal nañ ko di. Hadi jatu si kooku amaana ñu bari euh, duñ familier ak moom maanaam duñ ko ràññee bu baax waaye moom nag euh, moo nekk léegi ministre bi nga xam ne dafa remplacer beneen jigéen bu fa nekkoon ne Claudiana Cole mu yàgg fa nag euh, Claudiana Claudiana nag bu mu ñëwee. am na schools yi bari nga xam ne li nga xam ne mën nañ ko see fàttaliku mooy ne MRC Holland Foundation seen euh, lekkaloo bi nga xam ne def nañ ko ak nguur am na dëkk yi bari nga xam ne jot nañoo tabaxal gaay li nga xam ne nag moom mooy schools spécial opportunity schools yi yaakaar naa boobu achievement la boo xam ne moom itamit si jamonoom am na ko foofa waaye jigéen remplacé na jigéen waaye ki ko remplacé is not that too familiar Gambians they are uh, uh, leen dee a familiar ñun more or less politiciens ak activistes yi lañ dee bu that's nature of li nga xamante ne moom mooy suñu advocacy system bi nu mu dee demee uh, however uh, ministry bi comme noo ko waxee ku fa nekkoon am na li nga xamante ne moom mooy achievement ci wàllu li nga xamante ne moom mooy access to schools because yokka na li nga xamante ne moom mooy access yenn schools yi nga xamante ne sax am na ñu ngi ko transform from li nga xam ne moom mooy upper basic school to upper and senior secondary school loolu tamit gis nañ ko te gis nañ li nga xamante moom mooy di establishment of the uh, teacher training college in mooy Basse ak yeneen i achievements yi nga xamante ne am nañ ko like comme ni ñu waxee all the previous achievements yi nga xamante ne previous ministers yi fa génnee leen ah, ne nekkul dañ leen génnee because amuñ achievement but amaan na speed bu ñoo joxe. ba also bi time tamit soo resofule soo asee nit ku ees dafa am partners yu ees dafa asee li nga xamante moom mooy new ideas because moom it dafa bëgg a prove a point ba bu mu fee jógee nit ñuy wax lim def. like comme tey ni ñoo toogee di neetali li nga xamante ne moom mooy yeneen ministres yi li def so it's the same issue uh, nekkul nit ki nga xamante ne is that much familiar within li nga xamante ne moom mooy di media fraternity but those within the education system those ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu jàngal ak jàngale xam nañ ko and am na li nga xamante ne moom mooy rafet njorta bi nga xamante ne am nañ ne moom it xam na jafe-jafe yi nga xamante ne moom la jàngalekat yi di jaar uh, Omar réew mi nekk fi jàngalekat dafa métti honestly because suñ xoolee li nga xamante ne moom mooy nguuri président Adama Barrow depuis bu mu ñëwee am na significant achievements yi nga xamante ne am na ko lay mel ni li nga xamante ne moom mooy force 1000 bu mu yokka ci allowance yi ñuy liggéey ci nguur jóge ko foofu assez li nga xamante ne moom mooy 50 percent increment assez li nga xamante ne nañ ko li nga xamante moom mooy di recent increment bi nga xamante man ak yow wax nañ si si rajo bi yooyu yëpp dafa nekk mbir nga xamante yu wane ne mu ngee dem ba ndax mu ngee feeñ ci li nga xamante ne moom mooy teachers yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk hard to reach areas suñu ne mooy béréb bi nga xamante ne nit ñaa faa jànga waaye pour nga yóbbu fa nit mu jàngale def day war nañ koo mun a bàyyi xel beneen mbir mi nga xamante ne war naa bokk ci moom it sasam mooy teachers nga xamante ne ñoom ñooy jógee ko si collège bi engage nañ leen wala jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si collège bi war a génn jëm ci jàngat nañ saytu li nga xamante ne moom mooy seen wàllu welfare ci anam bi nga xamante ne moom mooy seen contribution suñ dee teg loolu te loolu te loolu tamit dafa am solo parce que daf dee feeñ. daf dee feeñ si jàngale non ku kontaanut sa li tari mu feeñ ah, gis nga tey jii su fekkoon ne ñun ñuy liggéey fii kontaanuñ kon dafaa feeñ si ñun te jàngalekat ah, comme ni ñu ko di waxee education is the key to success gannaaw jàngalekat moo war a defar réew moom moo war a defar àddina moom moo war a defar jamono waxuma liñ soxla yi war nañ ko mun a am waaye war nañoo mun a am lu tolloog seen càkkutéef. Ah, pour gaawtu rek bañ wattu bi xoj ñu ñu dem seeti ci ki nga xam ne kooku mooy honorable Amad Bah move nañ ko from tourism. yóbbu ko ci li nga xam ne nag moom mooy lands regional government ak uh, religious affairs mu mel ni Amat Bah ginnaaw uh, daanaka juróom-ñetti at wala juróom-ñaari at yi nga xam ne mu ngi si ministre boobu président Barrow muuf na ko kooku nag ay mbiram juróon na coow moom tamit ci uh, ci réew mi waaye dañ ñu bari dañ gëm ne dafa bokk ci laalaay kay yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ko gisee. waaw xam nga dafa am. maanaam mun nañ ko di ko muuf di ko muuf. waaye kenn ko génne ci laal nga laalaake <laughs> non xam in politics appointment uh, ministerial position can be non political but can be political mun naa nekk li nga xamante ne moom mooy uh, value bi nga xamante ne mu ngi ko aat bu also Amat uh, honorable Amat ba su ko bëggee nata uh, mënuloo ko nata ci li nga xamante ne moom mooy after 2020 si réewi Gambia to li nga xamante ne moom mooy 2022 because am na li nga xamante ne moom mooy global pandemic bu xew mu nekkoon li nga xamante ne moom mooy global tourism shock loolu nekkul Gambia rek la affect so lu ñu ko mun a meeso mooy depuis 2017 bu ñëwee ba 2019 but also from 2023 ak 2024 bu ñu nekka nii ah suñ xoolee 2023 ak 2024 am na improvement bi nga xamante ne am na waaye ah, suñ xoolee tourisme fu mu nekkoon dëgg-dëgg ba léegi nekkul fa but comme ni ma ko waxee am na external shock bi nga xamante ne fa global shock la sax bi nga xamante ne xew na doo ñun lu ñu war and this is what I keep advocating mooy réew yi nga xamante ne des developing countries including réew mu mel ni réewi Gambia su soog amee dañu war a mun a jàngee foofu noonu pour moomal suñ boppa what was wrong pour ñu promote li nga xamante ne moom mooy éco uh, tourisme éco cultural tourisme si centre si nii Omar ku wax ne tey jii uh, mënumaa jógee koo fii nii yóbbu suma njaboot ñu dem for exemple fi nga xamante ne moom mooy Barajali dem foofu noonu spend fa li nga xamante ne moom mooy three days am li nga xamante ne moom mooy dinañ ko fa spend si foofu but gis nañ uh, ministre bi si njiitam ñu assi those projects ba léegi bu yàggul gis nañ commission bi ñu ngee gestu si yooyu te some of them pour man Gambia waroon naa passé foofu parce suñ jëlee xaalis si nguur dépasse ko si luy yóbbu nguur kanam war naa feeñ si askan bi so yooyu noonu uh, mistakes la wala errors yi nga xamante ne di wee avoidable and séntu woon nañ wartoon a demee noonu suñ joxee nit contract deful lu jaar yoon di court sa xëya këru ATK yaa ngi fi war nañ leen a yóbbu foofu noonu ñu teg leen waaye gannaaw loolu uh, mun naa ne termam was a successful term to President Adama Barrow's government simply because as a politician add na value to li nga xamante ne moom mooy di establishment of the new cabinet because gis nañ ko fu président bi jógee dina jóg dina joxe kaddu te dina def lu mu mun pour motiver li nga xamante ne moom mooy di voters di electorate ak doomi réew mi pour ñu xam ne président Adama Barrow moo jara dénk réew mi te gis nañ loolu pay na dividends am na njëriñ also su ñëweetu li nga xamante ne moom moo xew ci wàllu ah, recently gis nañ naka la nekk di jëlee li nga xamante ne moom mooy ay brand ambassadors di leen yóbbu outside di Gambia ñuy def marketing pour li nga xamante ne moom mooy ah, go back di Gambia pour li nga xamante ne moom mooy gis and gis nañ very recent roots ñu ngi koo delloowaat joxaat ko xar kanam bu ees so loolu noonu suñ ko gisee dafa mel ni lim waroon na di njëkkee njëkkeewut ko waaye waa fu mu nekk ni mu ngi woon on track and pour man yaakaar naa ne ah, reshufflement boobu noonu xaw ma moom la ne xam man ndax président bi am na lañ si gis ñun luñ si gisul waaye pour man yaakaaroon naa ne suñ ko fa bàyyi woon amaan na dem na ba am ridim xam nga comme driver soo demee ba nekk GM number 5 ñu obstruct la nga war a starté GM number 2 dafa métti bara ngaa demaat ba GM number 5 waxuma ne lii mun naa am loolu noonu bot pour man pour man waaye fu ko yóbbu tamit da ngay seet ne foofu président Barrow dafa soxla foofu ku dëgër parce que ministre bi ñu dénk wàllu nguuri mooy regional loolu dafa am solo ba pare beneen bi mooy yàggul noonu moom ci boppam ci ay Euh, ci dialogue boo xam ne def nañ ko mu ne waruñoo bàyyi kilifa yi di wax ci seen xutba yi di waxkaat yi nga xam ne mën naa andi xaajaloo ci li nga xam ne nag moom mooy réew mi wala mën naa yàqal li nga xam ne mooy réew mi mu ne diine de il faut ñu daal di koy seet jéem koy euh, téye ba mu ko waxee nag ay weer lañ si teg rek daanaka léegi def nañ ko ministre bi nga xam ne affaire yi diine bi ci boppam dénk nañ ko ko li nga xam ne nag moom mooy politique bi sax si boor boobu ci wàllu nguuri ndaw léegi amat moom moo fay nekk mu mel ni président bi dafa jàpp nañ ne foofu vacance la parce que ku nekkoon kooku dafa feebaroon dem tukki ji ay weer kenn ni ko fa woon dañ ko dañ dénkaane woon li nga xam ne nag moom mooy ministre bi léegi mu dénk ko keneen koo xam ne nag kooku xëy na political move la te président bi amaana lim si nama mun na koo jot ci Amad Ba ci ministre boobu. waaw amaana fu jaar ñu nangu when it comes to Gambian politics si eh, administration ni président Adama Barrow ah, Amad Ba is a political figure to ah, loolu ci kaalamay angale mooy Amad Ba dafa nekk ki nga xamante ne su ñëwee ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi jamono bii nii ah, su ñëwee si politics moom eh, eh, du ma ne am na si cër waaye mbaxana la si waaw parce que du wax. du gannaaw du momentum yëpp am na ko ah, mun ngaa bañ a bokk ak moom gis-gis waaye ah, su waxee di ngeen mun a utee gis-gis waaye doone dégguma ko because du koy wax di yootaal waaw loolu fu njaar ñu nangul ko ko loolu kooku mooy amat ba suy wax daf koo wax comme benn time ma ngi doon def analysis moo wax ko sax ma ne he is more of a pragmatic person than diplomat moom wax bi nu ñëwee noonu la ko dee xaajee that is him so suñ ko denkee place bi nga xamante ne bëri na xaajoo dina ko war a mun a defar because pour mu wax la dëgg du xool sa xar kanam regardless of who you are he tell you truth in your face and then na di ko accommodate oo di nga dem nga defin ko waaye that is him loolu kooku mooy Amat Bah loolu fu njaar ñu nangul ko ko ah, man li fu ma doon xoolee from a transition point of view mooy ne dañ am fuñ jógee am fuñ bugg a aaga because man dama gëm ne Gambia suñ tourisme bi suñ defee moo of li nga xamante ne moom mooy écotourisme léegi léegi da ngaa gis ni ñi nga xamante ne dañoo dem si ay zoo Gambia ba léegi amaguñ fi li nga xamante ne moom mooy standard zoo bon war nañoo mun a am revivalaat li nga xamante ne moom mooy suñ cultural ambassador si Boom Start nii point bi nga xamante ne su tubaab ñëwee fii nii war naa mun a dem ci benn béréb mu spend foofu noonu xaalisam am njëriñ bi nga xamante ne dina ko am njeexital si eh, eh, koom-koom bi but also to the economy of those ñu fay dëkka te loolu li ko mun a asi mooy ñu génnee tourism from the greater Banjul ñu yóbbu ko ci béréb yi nga xamante ne de a li nga xam ne moom mooy cultural heritage ku wax ne fu mel ni fi nga xamante ne moom mooy wasu Stone Circles waruñ faa mun a bil li nga xamante ne moom mooy standard provincial hotel bi nga xamante ne ay nit ñi liggéey ñu nekk fa te si jéego yooyu lañ ko gis naam won naa li nga xamante ne moom mooy teexa teexa bi nga xamante ne amoon nañ ko si mooy some of the projects anam buñ ko joxee because completed bon waroon na see mun a jànge because gis nañ mu jël li nga xamante ne moom mooy revision of recent mu nekk di change li nga xamante ne moom mooy deri Gambia ci bitim réew te point bi nga xamante ne ah, this year luñ séntu luñ am si tourisme moo ëpp last year te man maa ngi séntu moo from li nga xamante ne moom mooy ah, bara njeexitali li nga xam ne moom mooy octobre. Euh, final yi ñu dem rek ah, ci kenn koo xam ne fas na si moom mooy Momodou Sabally Momodou Sabally ginnaaw coow li bu mu bayee ko UDP as their campaign manager ñëw na ci parti bi gars yi baalal nañ ko you know daan nga xam ne moom lañ tegoon ci ndoddaam daan yooyu nañ ko li nga xam ne moom mooy place loolu lañ laam-laamee woon ci réew mi léegi nag président bi def na ko special adviser special adviser nag du place bu ndaw euh, place bu màgg la ci li nga xam ne nag moom mooy nguuru président Adama bi mu mel nii moom daal mën naa mën naa xelal advice président Adama Barrow daanaka si bépp topic boo xam ne itteel la li nga xam ne nag moom mooy réew mi rawatina kan moom kooku mooy moom ki di président bi place boobu ñuy jox Sabally ndax euh, foog nga ne euh, place bu màgg la boo xam ne tey jii mën naa make effect man naa def coppite yi nga xam ne ndaw yi ñu ngi koy séntu ci moom rawatina moom lu ñu def faral di wax mooy ne the youth are happy ndax the youth will be happy uh, with him on that position. Euh, ñu waxee seen mbir du ma a analyse Ah, forget about Mamadou Sabally xariti Kawso la ndax am na benn Gambien bu ñemee taxaw ne Mamadou Sabally amut xam-xam amut noo ko bañ bañ bañ non thank you and then ñëpp xam nañ ne he is multifaceted ci kàllaamay angale mooy xam-xamam du ma ne wër na àddina waaye bëri na areas yi nga xamante ne wër na ko if he talks on economy because he is economist waaye nit ñi dañu xamul track record yi Mamadou Sabally mooy even before muy liggéey ci li nga xamante ne moom mooy wàllu koom-koom ci wàllu ndaw ñi dafa am jaar-jaar bu yaatu ci wàlla boobu noonu mu liggéey ci am si xam-xam an ñëpp nangu nañ ne suñ xoolee li nga xamante ne moom mooy ah, population backbone is the youth mooy ci wàllu li nga xamante ne moom mooy eh, nit askan bi ndaw ñi ñoo ci ëppa mu am ci xam-xam mu am xam-xam ci wàllu économie am xam-xam ci li nga xamante ne moom mooy wàllu international relations because bul fàtte ne amoon na jamono bi nga xamante ne moom moo nekkoon secretary ki nga xamante ne moom mooy di président secretary to cabinet understand mu jógee ko foofu nekk head of the civil service képp ki nga xamante ne yaa ngi liggéey nguur benn jamono amoon na ki nga jamono bi nga xamante ne moom moo nekkoon sa kilifa gannaaw li nga xamante ne moom mooy ministre si kon loolu kuñ dénk place boobu mu am access to all information si nga xamante ne ñoom ñuy jógee ko in all the departments and the ministries kooku suñ ko joxee place spécial advisor jox nañ ko lim yeerloo waaye fu ma dooree mooy man de dinaa doon nangu ne Mamadou Sabali mérité wul place bi su fekkee ne am na ku taxaw ne moom Mamadou Sabali amul xam-xam te coow li lu mu bëri bëri benn nit du ñëw mun naa la moom Mamadou Sabali amul xam-xam mun nañ laa wax ne noo he is this he is that waaye kenn du la wax ne amul xam-xam loolu moom kuñ jox leneen mu naan ko sax ku laal na Ba sa ñemew koo wax loolu yëpp nangul nañ ko ko am na xam-xam ndaw la doomi réew mi la. waaye ni jub koo xam ne nii. daanaka kàddoom su koy wax moom tamit mu mel ni comme li nga wax daf la koy wax straight straight forward ndax ëpp doole si li muy advice président bi ndax sentu nga ne loolu président bi ne ko def parce que Momodou Sabally nekkul koo xam ne dafay tiit oo dafay ragal ci kàddu yi nga ne na a koo see déglu président bi rafet naa njorta ne dina ko si déglu suñ delloo waatee ci kàddu président bi fi ñu this cabinet is not going to be business as usual man ak yow ak ñuy déglu ñu ngi ko déglu woon président bi wax ko si njiitali di late vice président yal na ko yàlla xaare àjjana kon yooyu noonu lim laa woon rek mooy ne président bi si boppam mu bugg a coppite bii kon président bi moo soxla ki nga xamante ne du xool place am comme ni mu ko waxee si dëji former VP waaye dafa xool réew mi te xool li nga xamante ne moom mooy njëriñu réew mi and also comme li ma wax si Amat Bah mu si ki nga xamante ne moom mooy Momodou Sabally not only ki nga xamante ne suy war ni ko moom am na slogan of can't cage me duñ ma tënka that's him moom that is his slogan Kant Cage mi mooy kuñ du tënka waaye he is also a political force to be reckoned with Momodou Sabally doone jox naa ko li nga xamante ne moom mooy sas soo ko joxoon tey si 12 eh, o'clock nga ne ko ëllëg 12 o'clock dajaleel 300 li nga xamante ne moom mooy yut mu dajaleel la ko loolu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy dooleel. dooleel loolu fooguloo moo war a waroon a tax président bi teg ko ci place boo xam ne mën na koo muuf par exemple ab na faa def changes mën na mën na ko move effects yooyu nit ñi mën ko euh, euh, gaaw a fos nit ñi duñ ko gaaw a yegg nit ñi duñ mun a xam duñ mun a gis lu moo advice waaye amaana su nekkoon si ministre lu mu fay liggéey ak li mu fay jiite ak coppite yi mu fay bëgg def ci yéenam loolu amaana mën naa fos nit ñi mën nañ ko gis te bu dee def na si lu baax nit ñi mën nañ koo xam suñ defu tamit lu baax nit ñi mën nañ koo gis. waaw xam nga pour like naa référence à dellu gannaaw si ki nga xam ne moom mooy docteur Ismaila Ceesay officially mosuñ ko appoint as an advisor waaye dégg nañ ko times without number si li nga xamante ne moom mooy advice yi nga xamante ne wala waxtaan yi nga xamante ne am na ko ak bi let me mention that word moo dee feeñ ah, waxtaan yi nga xam ne am na ko ak président bi te tey jii dem na bi àgga soo so man rafet naa njorta ne Momodou Sabally place buñ ko dénka su si defee li nga xamante ne moom mooy lu fees ah, war nañ koo mun a saytu ci li nga xamante ne moom mooy réew mi xam nga ministerial appointments nekkul tamit dangaa jël nit because of am nga keneen foog nga xool li nga xamante ne moom mooy di various sectors nga xool fi nga xamante ne fi nga fi nga ko mën a dugal ah, tey jii soo buggee jël Momodou Sabally fan nga koo dugal as of now gëm naa ne bu bëri fu ñu ko dugal dina fa fees loolu moom man rafet naa njorte boobu bari na fi nga xamante ne fu ñu ko dugal dina ko fees dégloo naa ko moom si kàddoom mu ne tamit du every appointment bu ñu ko jàll moo jël bi ko suñ ko joxee lu mu munu dina ko wax which I know xam naa ko ci moom ne duñ ko du enn muglum attan loolu moom xam naa ko si moom luñ ko dénka dina ko xool su ko attanu dina la wax ne attanu ko jamono bu gënoon a métti mooy jamono former président Jammeh te ñi toppoon politique si jamono boobu xam nañ ne am na li nga xamante ne dénkoon nañ ko bu munutee dafa taxaw wax ko ne munut si jamono bu gënoon a métti so su ko munee jamono boobu rafet naa njorta ne léegi la ko gën a mun a yomba so he that is Momodou Sabally that is him ah, pour wax li nga xamante ne moom mooy position bi pour man it's going to be an added advantage because lévi wut ko tu li nga xamante ne moom mooy cabinet responsibilities understand am na leverage pour advise the president on every sector loolu moo ko jot di leverage pour war a mun a dem to every political platform to every sector tam joxe fa kaddu te loolu moo ko jox li nga xamante ne moom mooy di leverage maanaam ah, li nga xam ne moom mooy bunta bi ibeeku ba mu war a mun a dem fu bëri gën faa liggéey lu yaatu war naa add value to li nga xamante ne moom mooy euh, nguuri président Adama Barrow euh, am euh, MPP rada bu also li nga xamante ne moom mooy knowledge base si wàllu xam-xam war naa yokka li nga xamante ne moom mooy administration du président Adama Barrow as a special adviser rawatina the type of person de president is because tamit soppa nga président Adama Barrow soppuloo ko di nga nangu de kuy déglu la because du ma de du ma de jën a joxe exemple mooy 2021 ou so nguur si Afrique mu joxe price si gerte nit ñi wax mu jokkati nguuri président Adama Barrow kon su fekkoon ne ku dul déglu la du ko def te loolu du man maa ko wax ñun ñëpp ko déggandoor ci at boobu noonu président bi bu ñu joxee eh, price si groundnut gerte coow li bari GGC ak seen njiit ñu dem def defi li nga xamante ne moom mooy seen consultation ak ay nit ñi bu ñëwee président bi dafa déglu mu yokka so su amee Momodou Sabally the type of person he is ak. yaa non I know him that is him Mamadou Sabally dama ne gëmut slogan yi Kant Cage mi am na ku doon doon time bi du feeñ ci mbooloo because nguur humilier na ko ci li nga xamante ne moom mooy lu gën a métti li nga jël a former secretary general nga def ko am ministre mu nekk li nga xamante ne moom amee higher education nga génnee ko foofu noonu jëluloo moto dugal ko li nga xamante ne moom mooy si kaso nga doxloo ko li nga xam ne moom mooy di streets of Banjul na ñu ko defoon ñu daw réew génn réew bi waaye fii la toog ci réew mi xuus nangoo jël da nga xamante ne moom mooy dat soog ba tey yàlla dogal lim dogal kon that is him not what he supposed to be because am na ñeneen ñu daj coono yi nga xam ne moo gën a ndaw dañ daw génn réew mi Euh, kon Kawsu euh, mi ngi noonu ñu rafetlu li nga xam ne nag moom mooy sa teewaay ci euh, li nga xam ne nag moom mooy sunu xibaar yi tey yaakaar naa ne lii dafa nekk loo xam ne président bi war na di ko def su ko defee pour gars yi xam ne kenn warta dal ne nag moom mooy place am every ten years but dama ne ah, nañ xool because léegi léegi am problème yu dee xew si ministries the problem is not with the ministers the problem is with li nga xam ne moom mooy the technicians xam naa li ma wax lu leer laay wax lu ma xam léegi léegi nga am ah, permanent secretary deputy permanent secretary directeur si nga xamante ne dañ am seen kabulu ñoom ministre bu ñëw dañ laa frustré def liñ bugg def soo d'accordul ak gaa ñu ñu ñu ñu eh, defal la li nga xamante ne origan ñu ko defee sabotage nga foofu ñu asi keneen man dama gëm ne ni ñoo ceeñee li nga xamante ne moom mooy ministerial positions war nañ koo saytoo li nga xamante ne moom mooy cabinet ama ah, ah, li nga xamante ne moom mooy permanent secretary deputy permanent secretary but also directors because the am na directorate yu nekk si ronam su directeur bu nekk liggéeyoon wala bu nekk liggéeyoon li ko war permanent secretary deputy permanent secretary liggéey li leen war a ministerial position is supposed to be a ceremonial position moo waroon a gën a yomba ci liggéey yëpp waaye su fekkee ne dem nañ ba place bi nga xamante ne pour nekk ministre ñu ngi koo ceeñ ba pare doxut nañ xool lan moo nekk di xew si directorate si follow every director check li nga xamante ne moom mooy xew si permanent secretary si xool li nga xamante ne moom mooy xew si deputy permanent secretary si loolu suñ ko defee amaana li nga xamante ne moom mooy développement dina am ba pare Omar xam nga foog ñu accept leen mooy ne su doxee doxalut président bi doxalut cabinet bi rek because njeexital bi di intel is parce que tey jii suñ fi defaree dara si ñun la moo mujjee because man gis naa fi contract suñ award yi nga xamante ne xam naa luubal bi si directeur si directorate si la jógee ko te ba léegi génnee nañ ay ministre génnee waat ay ministre te directeurs yooyu noonu ñu fa gis naa fi ay permanent secretary si nga xamante ne depuis bu ñu fa nekkee ñoo fa nekka few changes ñoo dee am ba léegi am nañ essai si yooyu noonu te nguur su buggee dox ñan ak ñan ñoo koy def. non non am na yi nga xamante ne sax président bi yëg na ko because am na yi nga xamante ne commissions were established on that. no he is aware some of them he is aware. because am na yi nga xamante ne they were commissions that were established Omar li ma wax du lu ñoo ragal because dama ne réew mi la ñoo waxal pour njëriñu réew mi si li nga xamante ne moom mooy koom-koomi koom réew mi lañ ko defaree. tey jii ministre benn position la every minister am ministerial positions am na lu gën a néew four directorates su directorate sooyu noonu yëpp liggéeyoon si li nga xamante ne moom mooy seen xaalis yi ñu leen a jox ñu dugal ko ci fu am askan bi njëriñ mu am njeexital mu feeñ so loolu noonu lu ñu war a mun a seetluwaat la pour man dama gom ne dafa war a nekk li nga xamante ne bu ma ne du ma ne a total overhaul bu a total review and restructuring jërëjëf Kawsou Badji jërëjëf euh, Kawsu Badji moom moo nekka euh, managing director bu Star FM radio ak euh, télévision moom lañ dalaloon ci li nga xam ne nag moom mooy programme bi tey mooy ci li nga xam ne nag moom mooy sunu xibaar yi marax yi tey waxtaan ak moom ci li jëm ci wàllu coppite nga xam ne président bi def na ko ci nguur gi bés ni ki tey fukki fan yi ak juróom ci weeru màcc wi mbokk yi dañuy jàll rek dem seeti beneen xibaar. ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Gambia euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk nguuru Gambia bi nag ci lëkkaloo bi nga xam ne def nañ ko ak ministre of health mooy jërëm bi denk wàllu pàcc mi euh, na jàngat bi nga xam ne nag ñu ngi koy def ci wàllu feebaru malaria bi nag ci réew mi boobu nag dem nañ nag si juróom-ñetti tund yi nga xam ne am nañ ko ci réew mi diisoo si ak askan bi def si li nga xam ne nag moom mooy ay gëstu xibaar boobu ñu ànd a ceeg Oli nguuru réew mi ànd si ak ministre bi nga xam ne moom lañ dënk lu jëm ci wàllum faj mi ñoom nag ñu ngi doon def gëstu lu jëm ci wàllum li nga xam ne nag moom mooy malaria bi nga xam ne nag bari na fii si biir réew mi keroon nag foofa nag ca Talinding si alxames bi boole li nga xam ne nag moom mooy ay xibaar yi nga xam ne jot nañ ko dajale pour lu jëm ci wàllum nag malaria ak nag yan jafe-jafe yi nga xam ne nag mu ngi koy andil ñi nga xam ne nag ñoom ñooy xale yi yi nga xam ne ñoom ñoo toll si euh, juróomi at ak jigéen yi nga xam ne nag euh, dañoo biir pour nag euh, mun leen a nag faj lu jëm ci wàllum malaria ak nag feebar bi nga xam ne nag moom mooy anémia loolu nag ah, mu nekkoon wër bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon def ah, kër ak pour lu jëm ci wàllu malaria ak anémia ah, pour nag def si nag gëstu foofa nag ca Talinding ñu àndoon si ak ñi nga xam ne nag ay technicien ay lab technicien leen ak nag ay nurse ak ñi nga xam ne nag ñu ngi jógee ko ba nag Gambia Bureau of Statistics pour nag ñu dem saytu foofu noonu nag ca Talinding waaye nag mbir booba ki ko jiite woon mu ngi tudd nag seena bu Diop bu ji moom madame jóob nag ah, wane na ne lu jëm ci wàllum mbir boobu ah, doon na ay jafe-jafe yi nga xam ne nag ah, ñu ngi ko si doon daj waaye gannaaw ba nga xamante ne nii nag mbir bi nag team woog la maanaam dañ booloo nag di ko liggéey loolu nag xal na leen a wàññeel nag jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko doon jànkuwanteel. waaye nag mu ne am na ñi si bëri ñi nga xam ne nag ah, dañ doon daw si nag ah, laajte yi nga xam ne ah, ñu ngi leen ko doon laaj loolu nag waraloon na ñu dem seeti nag foofa sa Banjul pour lu jëm ci wàllum nag xibaar yi nga xam ne ñu ngi koy dajale pour nag lu aju si malaria bi nga xamante ne nii nag bëri na fii si biir réew mi bu Menga mi nga xamante ne nii nag mu ngi àndoon ak nag mbootaay ñoom nag ñu ngi doon jaajëfal ñi nga xam ne nag ñoom ñooy logistique si nag support maanaam dooleel bi nga xam ne nag ah, ñu ngi leen koy dooleel rawatina si jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy. bi bot eh, am nañ jafe-jafe nag parce que jafe-jafe yi ñu am mooy diñ demee si kër yi eh, dañ dee am bu ko sof di test am na ñoo xam ne duñ ko dee eh, óolu ba nga xam ne duñ nangu soo dee ñoo jël excuse ne dañ or soo loolu tam xam nga si jafe-jafe la bokka ba pare respondant bi tam soo demee si kër gi fekk ah, mu ngi liggéey nga dem fa wan xam nga def fa benn yoon ñaari yoon ba ñetti yoon doo ko fa fekka xam nga loolu tamit dafa si challenge yi si la bokka waaye xam nga li gën a yombal suñu liggéey kay alhamdulilah nag parce que te am na yenn area soo xam ne def nañ fa wel parce que te amuñ fa mocc lifin refusal waaw su loolu tam suma tiim bi tam tiim bu baax laa àndal xale yu baax neexat liggéeyal ñoom tamit def nañ very well dégga dégga dégga kontaan nañ ci liggéey bi yëpp ñu ngi gërëm suñ coordinateur si tam ñoom itam parce que lu soxla ñoom it ñu di ñoo gaaw indil ñu ko fii nii loolu tam sant nañ ci yàlla bu baax a baax. bu mbay nag ah, mu nekk ki nga xam ne lab technicien la moom tamit nag mu am wàll si li nga xam ne moom mooy Gambia malaria indicator ah, sauvé bi nga xam ne nag ah, ñu ngi koy defee foofa ca Banjul mu doon wax nag ban nag wàll la am lu jëm ci wàllum mbir boobu xale yi ak nag yeneen mag yi nga xam ne def neen test maanaam saytu seen yaram lu jëm ci wàllum malaria bi ñoom tamit nag ñu ngi leen doon jox fajo bi nga xam ne nag dinañ mën a jot nag seen wérgu yaram jox leen nag li nga xam ne moom muy antimalaria nag euh, drogue muy ay garab yi nga xam ne nag euh, daf leen di gën a euh, jàppale si seen nag wérgu yaram mbiri xibaar yi nga xam ne nag ah, ñu ngi ko doon dajale lu jëm ci wàllum ah, malaria ak anémia ah, doon na li nga xamante ne nii nag lu am solo lay doon pour nag ñu mun ko dajale pour xool nag yan jéego lañ si war a mun a jël ak nag naka lañ mën a fexee ba nag jeexal fi li nga xam ne nag moom mooy feebar yooyu nga gis ne nag dina mën a yóbbu réew mi sa kanam rawatina nag suñ li nga xam ne moom mooy health sector bi lu jëm ci wàllum faj mi Star TV News mbokk yi ñu jaajëfal Oli Dieng ci xibaar boobu bu ko defee rek ñu dem seeti ci Gambia Supreme Islamic Council ñoom nag am na kàddu xam ne jot <clears throat> nandalum jigéen neneen nag female genital mutilation ñu ne nag dafa nekk jëf boo xam ne dafa yàgg ci li nga moom mooy aada ak ci li nga moom mooy li euh, l'islam maanaam daal dafa xaw a jaxasoo ak li nga moom mooy diine l'islam ba tax na am na yenn ci ay xadis yi nga xam nag yooyu dañ koo gën a dëgëral kon nag ci loolu council bi daal bëgg nañ euh, pour nag euh, ñu topp li nga xam nag moom moo li di satta yooyu waaye tamit waxuñ ne dafa suñ ko waree def am amul satta nga xam ne war nañ koo toppa jàpp ne ne am na satta nga xam ne war nañ koo toppa pour bañ a lor li nga xam ne nag moom mooy jigéen yi ñu ànd ci ak Seydou Camara ñu jàpp nag dafa bokk ci seeni aada ak seeni cosaan surtout fii ci biir réewu Gambia donte nag am na ay jéego yoo xamante ne ni ñu ngi koy jël pour dàqalu nandalub jigéen ci réew mi waaye loolu taxut ba léegi nandalub jigéen ñu bari ñu ngi koy def ci réew mi dañu ñu jàpp ne sax lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi pasen ci ay jigéen yi nekk ci réew mi ñoom jaar nañ ci nàndalub jigéen waral na nag ci jamono jiñ toll ni coow li bari na lool ci wàllum nàndalub jigéen ñii ànd si ñii ànduñu si ci benn boor bi nag ñi ànd ak nàndalub jigéen ñoom jàpp nañ ne lii dañ ko war a def ndax jullit bu nekk lii dafa am solo ci yow lool pour nga daal di ko def ndax jàpp nañu dafa ànd ak suñu diine ci islaam la bokk waaye tamit dafa bokk ci suñu aada ak suñu cosaan ñu fekk nag suñu maam yi di ko def. Euh, lii li ñu ooyee fatwa la fatwa mooy leeral lan mooy xàttee sharia ci nangam ak nangam ci loolu ñuy wax lël wala yóbbu wala jongal jigéen xarafal ko lan la ci gis-gisu sharia wax ak lan mooy position Supreme Islamic Council mooy li nga xam ne moo ne ci pépa bi liñ ci xam ne daal mooy ñu ngi saxal ne ci suñ fatwa loolu ñuy wax jongal jigéen mbir la moo xam ne sharia saxal na ko ci gàttal te it sharia jàppewut ko rek ne moom mbir moomu ab aadala la bu ñuy donnante comme ni ñi nga xam ni ñu bari ñi seen xam-xam wala ñi am beneen bëgg-bëgg di waxee waaye sharia jàpp na ne loolu ñuy wax jongal jigéen lenn la ci li nga xam ne taaru lislaam la te bokk na ci yi ñuy ooyee fitra yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa tudd na ko ne loolu ci lislaam la bokk ci beneen boor bi nag ñu àndut ak nàndalub jigéen jàpp nañ ne baaxut ndax dafay yàq ak ak yelleefu doomu aadama ndax tamit am na ay jafe-jafe yoo xamante ne ni daf koy jural jigéen yi nga xamante ne rek ñoom ñooy jaar ci nàndalub jigéen ci seeni kàddu tamit ñuy xam ne ne naan jigéen amul dara lu mooy def ak diine islam donte nag am na réew yu bari yoo xamante ne ni julliti ñoom ñoo fa ëppee ñoom dañuy def nàndalu jigéen ci seeni réew coow li nag li ko gën a yokku ci fan yi ñu weesu mooy bill bi nga xamante ne ni yóbbu nañ ko ci National Assembly bi mu di Women's Amendment Bill bi nga xamante ne nii liñ fay sàkku may pour ñu dàqalu luwaa bi nga xamante ne mooy tere nàndalub jigéen ci réew mi waaye ci fan yi ñu weesu nag Supreme Islamic Council ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom lañ jiital ñu yore lu aju ci wàllu diine bi ci réew mi gaaral nañ seen i kàddu di xamle ne seen taxawaay ci mbir mi nag mooy ne nàndalub jigéen nag loolu sariya la nekkut comme nu ko nit ñi di waxee ne lii aada ak cosaan kese la tey tamit ñu ngi ñaax nguru réew mi pour ñu bàyyi seen xel bu baax a baax ci luwaa bii nga xamante ne ni moom moo tere nàndalub jigéen ci réew mi député yi bu euh, Supreme Islamic Council mu di Kémo S Fati ci ay kàddoom nag muy xamle ne ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy Supreme Islamic Council seen taxawaay mooy ñu ngi ñax nguuru réew mi pour ñu gestuwaat luwaa bi nga xamante ne ni moo tere nàndalub jigéen ci réew mi. sariya nag ay sarta ak ay luwaa la yoo xamante ne ni. indi nañ ko pour mu tënk jullit yi ci anam bi nga xamante rek moom lañ war a jëfee ci diine islaam waaye tamit bu fekkee ne bëgg nañoo def lenn ci seen seeni dundin fii ci àddina ñu topp li nga xamante ne mooy luwaa yooyu ñu gën a xamee ci charia Seydou Camara mbokk yi ñu jaajëfal Seydou Camara bu ko defee rek ñu dem seeti ji ki nga xam ne nag kooku mooy Seynabou moom athlète la maanaam jigéen la joo xam ne mu ngi yëngu euh, euh, mooy doom maanaam mu ngi nampal li nga xam moom mooy euh, doomam bi jamono ji nag mu ngi dem teewal Gambia foofu la ca li nga xam moom mooy All Africa Games si ne ñu ngi koy amalee foofu foofu nag gis nañ mu ngi doon nampal doomam bi ci jamono bi nga xam ne tamit euh, mu ngi jongante ci li nga xam ne nag moom mooy benn match boo xam ne Gambia seen squad bi nag ñoom ñoo ci den play li nga xam ne nag moom moo di volleyball mu ne moom mu ngi farlu lool ci li nga xam ne nag moom mooy li di doomam ji toppatoo doomam bi waaye li nga xam ne nag moom mooy li nga xam ne moo ko war ak euh, li nga xam ne nag moom mooy moom moom nag mu ngi am fanweeri at ak ñetta te mu ci Gambia Police Force jamono yuñ toll nii nag mu ngi gaana ak female volleyball team bi ñuy compete ci All African Games yi gannaaw buñ gisee nag moom seyna Seynabou di nampal doomam loolu nag isi na ay yërmaange lu bari ak njaa ñu bari tam jaajëfal nañ ko ci lu mu wone waajur bu jigéen maanaam taxaw doomam taxawi yaay parce que sport bu moo nekk di def nii di volleyball loolu rek terewut ko pour mu war a nampal doomam wala mu taxaw tànki yaay kon loolu tax na bu ñëpp gisee ci ay nataal si social media bi moom Sainabou Tambadou bi am fanweeri at ak ñetta di nampal doomam foofu noonu la ca loolu dafa daw yërmaange ci ñu bari tax na bi ñu bëri kontaan nañ ci moom di ko jaajëfal di ko gërëm bu baax a baax ci lum def noonu gaana nag ñoom dañ dóor Gambia seen volleyball team bi loolu nag terewul Sainabou nag moom it waneen na xarañteem si match boobu noonu ñu ngi gisee nataal bi foofu noonu si Gambia Talent Television Sport show bi mooy bu mu nekk di nampal doomam bu nag mu ngi si police bi ba léegi te su loolu tamit weesoo bu mu ngi amee master's degree in computer science Mbaykor Star TV mbokk yi xibaaru bi réew yi foofu la ca réew Sénégal euh, ki nga xam ne kooku mooy Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye bés ni ki démb nag euh, bàyyi nañ leen euh, bi ñu leen bàyyee nag ndaw yi bari na génn na ci mbedd yi seen i ak kontaante Ousmane Sonko nag ñu bari jàpp ne ne moom moo nekk koo xam ne jàpp ne ne Macky Sall bu waree randu foofu la ca réew Sénégal rek moom moo koy randal nee nañ daal moom na génn bu mu génn ci kaso yi bés ni ki démb parti supporters yi ak ñu bari nag ci askanu Sénégal nag dañoo génn ci mbedd yi jël flagu Sénégal bi nag raaya Sénégal bi nag téye ko di daw ak moom waaye tamit nag di yuuxu wax li nga nag moom mooy seen kàddu Sonko nag wane depuis weeru julaay lañ ko jàpp <clears throat> nag xeex bi nga nag a bokk ci li nga xam ne nag moom mooy présidential election si yi nga xam ne nag bi nga nag ci lañ nekk Sonko nag ak ki nga nag kooku mooy euh, euh, euh, seen candidat bi nag di Bassirou Diomaye Faye ñoom ñaar yëpp lañ daal di bayandoor ak seen lawyer bi nag di Bamba Cissé lawyer Bamba Cissé nag comme ni ko xibaar yi nag waralee waxu nag wa ñu ne jamono ji li leerul nag mooy moom bàyyi bu ñu ko bàyyi moom Sonko xamuñ yan façon ngi coppite muy def ci élection si parce que nag Sonko parti bi di Pastef am nañ candidat ba pare waaye daal xam nañ ne jamono ji daal moom kii di Sonko euh, euh, nag ñu ne dina adresse li nga xam moom mooy sokotasam yi bés ni ko ajuma tey jile euh, jëm ci wàllu li nga xam moom mooy élection si nga xam ne nag ñu koy waajal foofu la ca réew li di Sénégal mbokk yi bala ñu jeexal xibaar yi Euh, njiitu réew mi His Excellency si président Adama Barrow am euh, euh, seetaat lu aju ci wàllu xeex bi nga xam ñu koy xeex malaria ci réew mi ministre of health nag ñoom jamono ji am na wër bi nga xam ñu koy wër réew mi pour waxtaan si askan bi def si ab jàngat seet yan façon ñu jéego la dox pour mun a xeex li nga xam moom mooy jàngoro malaria bi fële ca réew di Sénégal ci baar bi réew yi euh, Sénégal nag seen opposition leader bi nag Ousmane Sonko ko ak Bassirou nga xam ne moom moo nekk seen euh, candidate bi euh, ginnaaw bi nga xam ne nag war ne nag Sénégal si élection si ñu koy waajal ñu jàppal ko ñaar fukki fan yi li moo nekkoon ci xibaaru timis yi man Omar Tunkara maa leen moo ñu jàppale ci li nga xam moom mooy machine bi yaaya moo ñu nekkal ci li nga xam moom mooy caméra bi waaye Poste TV moo ñu teewal li di xibaar